nan tey gërëm di première dame bu Sénégal mariam Faye sàll ñëw na teew ci Porokhane ci màggal gi nga xam ne moom lañ jagleeloon soxna jaara Bousso première dame nag bi muy ñëw mu ànd ak délégation bi mu agsee la jubali kër soxna Baali Muntaxa nekk xaritam wëllëreem loole nekk loolu soxna Baali Muntaxa rafetlu na ko bu baax a baax rawatina taxawaayu première dame bu Sénégal ci lépp loo xamante ni jëm na ci sëriñ Muntaxa Mbacke Bachir rawatina ci jëmmam ji nga xam ne moom moo di soxna Baali Muntaxa soxna si nag santaat na ko bu baax a baax gërëm ko waaye gën a feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne dox na ci seen diggante ñoom ñaar ginnaaw bi si la fa bàyyeekoo soxna Baali Muntaxa daal di ko yóbbu ci xalif général des Mourides Serigne Muntaxa Mbacke Bachir moom première daam bu Sénégal Marième fay sàll sëriñ bi dalal ko bég lool ci jéego yi nga xam ne def na ko ñëw ba ci màggalu poroxaan gi sëriñ bi santaat ko bu baax a baax gërëm ko ci taxawaayam ak lépp loo xamante ni mi ngi koy jëf ci dimbale doomu aadama yi waaye dimbale ñi nga xamante ni dañ koy yittewoo rawatina yoonu murit loole lépp nekk na lool Serigne Mountakha Mbacké Bachir santaan na ci premier dambu bu Sénégal daal di koy ñaanal. waaye tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir mu am ngir mu jëf ba sant fi jaaraay jërëjëf rabbuna جروا الأكبال هكذا شيخنا القديم لو مجاد